bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullah eh, ginnaaw bi ñu jiitalee ci siyaar bi Cheikh mun taxa yàlla na fi yàgg te ànd ak eh, di siyaare sëriñ Afi bu sal imam eh, ak sunu kilifa gi nga xam ne mu ngi teew ci jataay bi muy sëriñ Jili Buso mi nga xam ne moo nekk tey fii ñu nekk fii tey fii ci bureau bi di jëwriñ ji nga xam ne mooy taxaw communication bi yëpp. Eh, ñu am mbégte lool nag teew fii eh, ànd ak eh, sunu kilifa gi nga xam ne tamit mu ngi tudd Dieye di directeur POMECAS bi ci Touba ànd ak ay kilifa tey jii ñu ñëw fii ci jumaa yi Seexul xaddim ji li leen fi indi nag mooy fas yéene liggéeyal Seexul Xadim ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey bi daayira Muxaddamaatul Xidma bi yor jumaay Sëñ Touba ji di taxawu Euh, ñu ñëwoon fi nag it ci koor gi indi woon fi liggéey bu takku bu jëm ci wàllu euh, koor gi ci wàllu ndogu yi tey jii nag euh, ci màggal gi nga xam ne kenn ku ne xam na ne liggéey bu mag la ci daayira bi taxaw ñoom it ñu nekk fii ci Touba ci banque bi nga xam ne mi ngi nekk fii ci Touba ñu yàgg fësal seen yéene ngir jàpp ci liggéey bi loole nag lañ doon ñëwaat tey jii di ko feddaliwaat njëkkee nañ ci sëñ Aafi busal imam ba siyaare ko wax ko seen yéene sàkku seen ñaanit it e, sëñ Aafi ñaanal leen ci dooley borom liggéey bi mu Cheikhul Khadim ba lépp lu ab taalibe wala jullit di liggéey ci lislaam rawatina di ko liggéey fii ci jumaa ji ñoom ñii ñu liggéey liggéey bu toll noonu ci biir jumaay sëñ Tuubaa ji loolu nag sun xel dal na ci suñu yaakaar dolliku na ci ndax fii moom lépp lu fa indi na la wóor na sëriñ Tuubaa gërëm na ko kon directeur ñoo ngi lay yóbbante ci kilifa yi yi nga xam ne euh, yaa ngi ñoom ak képp koo xam yéen a séq liggéey bi ci na xam ne eh, moom am ngeen ci ngërëmul sëñ bi euh, di leen ci woowaat nag te di leen tàllal loxo ndax kat liggéey la boo xam ne daayira bi moom yàgg na ko wax waxtu wu ndigal jotee dañuy woo ñëpp ndax yéene ñëpp taw féex te fii moom fu sekki la lu fi waaye def rek sëñ Tuubaa am nga ci ngërëmal sëñ Tuubaa leeraloon naa la léegi taxawaay yi nga xam daayira bi nga koy taxaw ci diggante armeel yi muy Baxiya ci diggante entretien bi lépp lu aju ci pilier làmp yi ci diggante maanaam koor gi ndax koor gi lu toll ci ay mille personnes ñoo fiy doge si fii nga xam ne ay millions yu bari lañ ciy def bu dee màggal gi nii lu ëpp junni junni doomaa dañoo fi nekk daayira bi ñoo leen di yoral seen lépp loolu tam muy muy liggéey bu mag li aju ci wàllu euh, matériel yi ñu fi indi gis nga ko euh, diaspora bi am na loo ci xam gis nga maanaam euh, ñun suñ taxawaay ci diaspora ñu ànd kook taalibe yi sëñ Tuubaa yeeg jullit yi machine yeeg euh, maanaam oto yeeg ba ci wàllu wàllu matériel bii di communication yëpp lépp taalibe yi sëñ Tuubaa yi ñoo ko fii indi daayira bi nag day daayira boo xam ne moom noonu rek lañ ko daan waxee sëñ Afia da koy wax liggéeyub sëñ Tuubaa la boo xam ne daal woo nañ ci ñëpp ñun nag suñuy xel dal na suñu yaakaar dolliku na ndax yéen bi ngeen ñëwee jébbal seenub liggéey fesal seen yéene ci fas yéene jàpp ci liggéey bi ñun loolu yaakaar nañ ne moom loolu sëñ tubaab moom moom moom moom euh, danañ ko amee niñ ko bëggee ndax yéen itam xam nañ ne yéen lépp lu ngeen dugal seen loxo jàpp ci liggéey boobu dana mën a yaatu kon xam naa dama doon ubbi rek su ko defee ñi nga àndal nga présenté leen sëñ Jili mi nga xam ne tey moo fi teewal sëñ bu Buso Euh, bëgg nañ loolu daal xam naa lu ma ci dolliwaat rek day day xaw a kii waaw waaw kay. wa rahmatullah ginnaaw bi ñu sante suñu borom di julli ci Seydina Muhammad rasulullah di sant Serigne Touba Khadim Rasoul ak di jaajëfal maam Chara ñi nga am mbégte bu wër bu wér a wér a wér teew fii ci jumaay Serigne Touba yi ngir euh, waxtaan ci xëy na action sociale yi nga xamante ni dañ ko baaxoo di def. ginnaaw balaa ñoo dugg ci waxtaanu xëy na damay sant jëruñ ju baax ji nga xamante ne mooy Assane Diop nga xam ne ci baaxaayam ak ci yaatuwaayam ak ci taxawaayam la amee donc ndimbalu xëy na mën a wax ñëw di waxtaan ak waa daayira xidmatul xadim donc ñu ngi koy sant sant bu wér ginnaaw bi loolu weese aussi ñuy sant kilifa gi nga xamante ni mooy sëñ Afé Bousso ak mbooleem kilifa yi nga xamante ne xëy na ñoo topp ci moom di leen sant bu wér a wér balaa may tàmbale aussi dama leen di donc xëy na présenté ni damay wax ci turu PAMECAS ma ànd ak donc kilifa bi nga xamante ni xëy na mooy sama kilifa ci wàllu liggéey bi féete Thiès di tudd monsieur Koundoul Alioune Koundoul di leen présenté aussi jëwriñ ñi nga xamante ne xëy na suñu waa direction générale ñoo leen fi yabal muy Aïssatou Seck ak Massamba Ndéla nga xam ni dañoo ñëw teewal fi suñu direction donc fi ñuy liggéey nag mi ngi tudd PAMECAS di genre genre réseau mutuel d'épargne et de crédit nga xamante ni bu koy xayma mën nañ ko xayma comme banque waaye li ko différencier ak banque yi mooy xëy na lii képp koo xamante kii yaa nga fa yow yaa moom loola. ñu nii ñuy liggéeyee nag di xool fa ñu nekk képp koo xamante ni xëy na fa nga dëkk te bëgg a yëngu te amuloo doole xëy na ñu ubbil la bunt yoo xamante nga mën a am financement ngir mën a renforcer sa liggéey boo amee as boo xam ne aussi xëy na bëgg koo rawale. ñu ubbil la donc compte yu yu yu mucc ayib nga mën faa rawale sas tuut donc loolu mooy suñu liggéey bu ñu liggéeyee ba admetteur aussi du ñàkk loo xamante ne xëy na dañu koy gagné la ñuy aussi dañoo tàmm di ci jël donc lu am solo di ko delloo ci sociale bi ñu gis xëy na dëkk bu sell bi ñu nekk di Touba social mënta gën a kawe liggéeyal Sëñ Touba ndax lu kawe la donc ñu am mbégte lool nekk tubaa di fi liggéey am mbégte lool aussi liggéeyal am yéene lool aussi liggéeyal Sëñ Touba. moo tax donc xëy na ñu jàpp ni xëy na weer bi weer bu sell la weeru màggal la donc képp koo xamante ni xëy na euh, bëgg nga lu baax bëgg nga euh, donc lu sell war nga tabal sa loxo ci ci ci liggéey bi moo taxoon donc ñu ñëw donc doon baaxantal naam xeeb nañ ko lool indi seen tuut donc barkeeloo ko ci liggéey bi nga di liggéey te am yéene aussi xëy na yàggal ko mu sax mu gën a yaatu mu gën a mu gën a kawe donc mu gën a barkeel di sàkku ci yéen ñaan aussi ngeen ñaanal ñu donc ci yéen ak seen i kilifa yi nga xamante ne xëy na ñooñu jiite ñu ñooñu bokk yilif ñu ñëpp ñu ñaanal ñu ba liggéey bi nga xamante ne xëy na moo ñu fi nekk mu sell te barkeel te yaatu ba lépp lu ñu am yéen liggéey ko sëñ ñu mën koo def niñ ko bëggee te mosut suñu yor donc loolu mooy tànk yi nga xamante ne xëy na moo ñu fi indi woon donc ñu leen di sant bu wér a wér a wér xëy na aussi di leen ñaan comme ñun ci wàllu denc la ñuy liggéey tey it PAMECAS xëy na donc lëkkaliko nag yeneen réseau yoo xam ne ñu ngi nekk ci sous région bi te di liggéey aussi képp koo xamante ni yaa ngi nekk ci diaspora bi te comme Sëñ Tuubaa aussi dimension international la fépp ci monde bi taalibaa ngi fa ñu ngi leen ñaan aussi xëy na ah ngeen bu ñu mënee jàppalante ci daayira yi nga xamante ni ñu ngi nekk ci à monde yi ñu am compte PAMECAS ba bépp taalibe boo xamante ne am nga barkeelu boo bëgg a indi ci Touba mu ñëw ci jumaa ji wala fépp fu mën dem mu mën a jaar ci compte Pamecas yooyu xëy na mën a dem fa mu war a dem ndax am nañ ci ay jumtukaay jumtukaay yu mucc ayib yoo xamante ni donc fu mën a jógee ci monde rek donc danañ ko xay say danañ ko saytu donc sécuriser ko ba mu egsi ko ba mu war a dem waaw donc xëy na wax moom yombut waxatuma ak doog di wax ci këru Sëñ Touba ginnaaw bi ñu amee ndigal wax xëy na ñu ngi jégalu donc di leen xamal lépp lu ci wax ji. sunu ndimbalu borom la lépp lu ci luñ ci juma aussi xëy na du woon suñu yéene donc ñu ngi sant bu wér a wér a wér xëy na di jox suñu naataango yi nga xamante ni mooy responsable yi jógee direction luñ ci mën a yokk ñu yokk ci asalaamaaleykum wa rahmatullah aousubillahi min cheytaan bisimilah rahmaani rahim laa xawla wala xawla illa billahi alil azim asalaamaaleykum sëñ Jili Bousso ñu ngi lay nuyu di la sant di am mbégte ñëw fii seet si la waxtaan waxtaan ak yow man nag maa ngi tudd Massamba Ndella Samb bokk ci délégation bi jógee Ndakaaru ànd ak sama naataango muy soxna ay Aïssatou Seck yore département marketing communication ak développement commercial ak performance sociale euh, te waa direction général nga xam ni président conseil d'administration Moustapha Niang ak directeur général bi Mamadou Faye ñun koy defee at bu nekk dañuy yónni délégation bu jógee Ndakaaru ñëw jëmmal PAMECAS ànd koog sunu direction régionale bi nga xam ni sunu naataango bi di Aline Koundoul moo ko jiite direction régionale boobu nag mi ngi tàmbali Thiès jël région de Diourbel ëmbaale Mbacké ak Touba dem ba daara si ngeen gis ni donc sëñ Alioune mii moom moo teewal pamekaas fii si Touba doon chef d'agence bi donc ñun dañuy ñëw ànd ak ñoom nekk si liggéey bi ngir euh, màggal gi ñu jàppale ñu waa ñi nga xam ne ñooy taalibe yëpp pour seen màggal jaar yoon loolu nag niñ koy faral di defee mooy dañuy déployer ay euh, guichet temporaire fi mu ne si màggalu ren gi am na ñaari guichet yoo xam ne benn bi mi ngi janatul maxwa beneen bi mi ngi garage daaru loolu nag liñ si jublu mooy li tubaab na rapprochement de service parce que gis nañ ne pèlerins yi fekkee dañoo jóge fu sori léeg-léeg seen xaalis daf leen di xaw a sori soxla mun na leen bett su ko defee di ñu wutal leen bërëb yoo xam ni buñ fa ñëwee dañuy mën a jokkoo ñi nga xam ni ñooy ndawu PAMECAS yi lépp opération boo xam ni dañ ko bëgg a jëlee seen compte wala ñu euh, retrait wala dépôt ñu mën ko def yeneen opération de transfert d'argent yi aussi ñu mën ko def si wàll woowu tamit jàpp nañ ne ñun danoo am lu ñu ak euh, askan bi ak euh, taalibe yi moo tax dañuy indaale ay articles yoo xam ni def nañ ni dañ koy soxla lu jëm si wàllu ndox lu jëm si wàllu basang lu jëm si wàllu satala ak ay ak yi ni mel d'ailleurs sax si atu Covid yi daaw ak daaw jéeg indi nañ ay masque indi ay gel yooyu yëpp pour jéem a xool nan la ñuy aaree taalibe yi pour que seen màggal vraiment doon màggal gu mucc ayib si biir loolu aussi dinañ euh, def ay visite ay ziar den dañuy ubbi ziar yi dem si xalif Sëriñ Tuubaa ziare ko euh, sàkku fa ñaan joxe fa tamit euh, sunu lu ndaw loo xam ne rek jàpp nañ ne mënta ñàkk si màggal gi bu ko defee tamit noonu lañuy def di dem si yeneen bërëb yi ziar yi moo tax tey nag ñu am mbégte vraiment amuñu bërëb bu gën a rëy biiru euh, bërëbu Serigne Touba bi muy jumaa ji ñëw fekk fekk fi daayira bu mag bu mag bu mel ni ngir indi fi tamit sunu euh, ziar won leen tamit ne ñu ngi rafetlu liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy liggéey muy at ok wattu bërëb bi ñu nekk nii muy jumaa ji wattu ñi euh, bërëb yi nga xam ni moom lañuy ñuy denc nit ñi te ji jàpp na ne loolu liggéey bu am solo la ñu leen di ne at yii di ñëw ak yeneen euh, ki événement yii di ñëw ak même euh, dinañ fi gën a xool nan la ñuy gën a lëkkaloo ak yéen parce que gis nañ ne liggéey bi ngeen di def nii liggéey bu am solo solo la donc xam naa lii rek euh, contact yu njëkk la rek waaye dinañ jéem a xool nan la ñuy organiser woo pour que ñu jéem a xool ay perspectives yoo xam ne dinañ ko mën a Euh, liggéey ba lépp doon njariñ sama naataango bi sëñ Alioune Dieye di chef d'agence bi am na benn xalaat bu mu wax léegi bi muy intervenir di woo waa jaspora taalibe yi pour que ñu ubbi ay compte yoo xam ni seen ziar ak seen euh, wërsëg dina ci mën a jaar ba egg si si si euh, si bërëb bi je pense que ni loolu benn idée la rek waaye am na yeneen idée yoo xam ni je pense que buñ ko lëkkaloo toog waxtaanee ko dinañ xool nan lañ mën a jàpp si liggéey bi nga xam ni kii bi mi ngi koy def nan la tuddati daay euh, daay daayira bi di wax rek vraiment ñu ngi am mbégte bu baax a baax a baax ñëw fii euh, seet si leen ziyaare leen euh, di sàkku ñaan nag li nga xam ni def nañ ko ren bu déwénee suñu yéene ëpp rëy na mais suñu jëf xaw a méngoog suñu yéene ñu ñu ngi si sàkku bu baax a baax a baax di ñaanal ñëpp màggal ak jàmm di ñaanal ñëpp màggal ak mbégte jërë ngeen jëf. waaw jërëjëf euh, directeur euh, kàddu yi am na solo lool te it wax dëgg yàlla lépp mat na ànd naag yéene it kon nag yéene jooju yàlla na leen ci sëriñ suñu borom defal am gàttandu ci barkeb sëñ Touba noonu noonu ñu ko leeral la rek day liggéey boo xam ne moom liggéeyu sëriñ bi la. liggéey bu lislaam it ubbil nañ ko ñépp waaw bépp xalaat boo xam ne daal bu ngeen ci jaaree mu mën a yaatu ci biir réew mi ak bitim réew loolu moom moom woo nañ leen ci ñuy jébbal kàddu gi nag sëñ Jili Buso nga xam ne moo fi teew teewaayu sëñ Afia Buso al imam mu wax ci kàddu sëñ Afia ak kàddu daayira bi waaw asalaamaaleykum wa ginnaaw bi ñu leen siyaara <clears throat> ndokkeel leen ci weeru màgg wi nga xam wu tedd wi nga xam ne ci la nekk ñu ngi leen di dalal ci place bu màgg bi nga xam ne mooy jumaay Touba di am mbégte mu rëy ci ñëw gi ngeen ñëw ci di yëngu ci social xam ngeen ne jamono ji ñu toll jamonoy màggal képp koo xam ne jug na rek day dëgmal fi nga xam ne mooy jumaa ji loolu nag day aaje yu baree bare yàlla dogal seen xel mm, jëm ci uh, wut lu mel ne yi ngeen indi muy ay ndox ak ay toogukaay ak ay ay jumtukaay def defukaayu ndox ba mën a mën a def li nga xam ne moo tax ñuy ñëw ci barab bi xam ne ku bëgg a jàpp mën a jàpp uh, xam ngeen ne ndox day nekk loo xam ne ajo aajo la fi rawatina place bi ñu nekk ndax foo xam ne ay ay million ngi yi millions yi ñoo fiy jaar euh, donte duñ fi duñ fi tasewnoo ñoom ñëpp waaye léeg-léeg ñu tasewnoo fi dañuy soxla ndox euh, dañuy soxla jumtukaay yi nga xam ne jot ngeen ko indi euh, xam naa wax ji du gudd lool waaye di ñaan ñaan yàlla subhaanahu wa mu defal leen tawféex Euh, defal leen barke ci euh, seen tànk yi nga xam ne euh, dox ngeen ñëw fii ci jumaa ji di am mbégte mu rëy rëy nag ndax dafa mel ne ni ngeen ko ni ngeen ni ngeen jigéendoo mel na ne yow jigéen la wu am solo ndax kenn rek bu jigéen woon ci yéen rek ñëw day daal di doy waaye bu bu njiit jógee ka ca topp ñëw ki ki leen nekkal fii tamit ñëw ki ki leen nekkal fii rek ngeen ko yónni woon doy la ñu ngi leen sant bu baax ci tànk yi waaye ñu ngi sant bu baax tamit ci social gi nga xam ne def ngeen ko euh, indi ko ci barab bu tedd bi ndax Sëriñ Tuubaa moo waxoon ne képp koo xam ne feeñ na ci feeñ na ci dana feeñ ba faw képp koo xam ne jël ay yëngatoom laal dara ci jumaa ji rek yàlla suñu borom dana feeñal say mbir te yaakaar naa loolu loolu loolu moom moom ngeen gën a soxla te mbir yi bu feeñee dana jur njariñ ñi nga xam ne moo tax ngeen di yëngu euh, dellu wax nag ku ci nëbbu tamit wala yaas billah kon feeñ ko ngeen goo xam ne euh, kii ngeen ko yàlla na suñu borom def feeñ ko ngeen muy seen tawféex waaye nag muy seen yokkute waaye mooy seen jëm jëm ci kanam jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf amiin